bu baax a baax di la wax ne euh, yaa ngi fi tudd léegi port sa xarit ñoom sira dañoo bëgg ñu jàppale ci sponsor yi waa port nañu ñëw jàppale LONASE dañu ñëw jàppale ndax euh, làmb ji dañuy jàppale suñu njaboot gi te sponsor yi am na si njariñ bu baax a baax may wax ñu lancé leen app ñu ngi leen di lancé appel rek euh, di ko lancé président de la république mu jàppale ñu bu baax a baax ndax liggéey réew mi rek moo ñu tax a jóg te promoteurs yi jàmbaar lañ xaadim en tout cas di kontaan rek di di di bu baax a baax di la wax ni kontaan nañ bu baax di nuyu nag Sénégal yëpp sénégalais yëpp ñu ngi leen di nuyu ak Séné ak waa Europe di nuyu fépp fooy mën a nekk rek mu ngi lay ñaanal jàmm ak salaam di wax kontaan nañ bu baax a baax di nuyu nag ñëpp rek bàyyi wuñu kenn ndax ku lim juum. jërëjëf jërëjëf Xaadim kontaan nañ jërëjëf jërëjëf mais Ami Ndiaye Ami Ndiaye nee ko sëriñam bi nag di nga fa yóbbu ndax sëriñ bi dañoo dàqale ba mënatuma laa gis. Ami Ami Ndiaye lay dégg waaye maa ngi waaj a dem Gàmbi sama xarit bi lay àndal dem Gàmbi pour li jënti ko jërëjëf Xaadim jërëjëf Adja Ndeye Ndiaye tey seen yaakaar naa ni Boy Kayre euh, fi mu nii ndeysaan pour xaana ngi wax ak Boy Niang dëgg Xaadim léegi dama bëgg rek euh, balaa arbitre bee soufflé ki nga xam ni mooy euh, Mamadou Diouf limal ma palmarès su xale yi waaw ñu ñëw ci palmarès su ki nga xamante ni mooy Boy Niang père Khadim ci la ñuy jëfee Boy mu ngi ñëw 2008 ci lamb daan Modou Diouf 28 février 2009 mu daan Batista 1er mai 2009 mu daan ay 21 juillet 2009 15 juillet 2009 mu daan Miss 20 décembre 2009 mu daan Brise de Mer 24 juillet 2010 mu daan Pape Sène 10 avril 2011 mu daan ki nga xamante ni mooy Jolfu 2 juillet 2011 mu daan ki nga xamante ni mooy Sakajoor numéro 2 9 avril 2012 mu daan Lees numéro 2 23 avril 2014 mu daan ki nga xamante ni mooy Baye Mandione waaw waaw. ak liy def. ndeysaan am na solo waaw 13 mars mu daan ki nga xamante ne mooy Garga avril mu daan ki nga xamante ne mooy guy gi moom boobu la mujj am deux défaites la am. ki nga xamante ne mooy Sof moo ko euh, ki nga xamante mooy Amaneex moo ko daan 27 février Amaneex daan ko 8 ki nga xamante mooy Sof daan ko. lay jeex na arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër ki nga xam ni mooy. Euh,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 parce que Boy Niang dafa di koo xam ne dafay lire combat. day lire combat day lire combat gis nga.